Serigne Touba Sëñ Muntaxa dafa delloo si démbi yoon wi. dafa delloo si démbi yoon wi. lépp mu jooyal ko ci sëriñ bi. lépp mu jooyal ci sëriñ bi. ñu sosoon yoon wi. ñu sosoon yoon wi. Seex Ibra Faal doon seen ñeent fukki. nañ ko tëree woon ca booba. sëñ Muntaxa loolu la yeesal. yàlla it far ko ca. yàlla it far ko ca. yéen ñëpp ay tuut tànk ngeen. yéen ñëpp ay tuut tànk ngeen. waaye ñee sosoon yoon wi. waaye ñee sosoon yoon wi. ëpp ñu leen yéene. ëpp ñu leen yéene. ëpp pas-pas ci sëriñ bi. loolu nag kon. loolu nag kon. day feeñal nangul gi leen sëriñ bi nangul seen pas-pas. mu agsi ci yéen. mu agsi ci yéen. sëñ bii ñu nekkal tey nag. sëñ bii ñu nekkal tey nag. yeesalaat pas-pas yooyu. yeesalaat pas-pas yooyu. mbas mii am daaw daaw jéeg ak ren. mbas mii am daaw jéeg ak ren. ba ñu ma ko dalee jàmbat. ba ñu ma ko dalee jàmbat. muy waa bitim réew. muy waa bitim réew. ñoom Basiirou Dia. ñoom Basiirou Dia. bi ma ko waxee ci màggalu poroxaan bi. bi ma ko waxee ci màggalu poroxaan bi. daf ne ma sëñu ma cee ñaan. daf ne ma sëñu ma cee ñaan. waaye sañ na jël sama dënnu. waaye sañ na maa jël sama dënnu. sës ko ci sëriñ bi. sës ko ci sëriñ bi. bàyyi koog sama bopp. bàyyi koog sama bopp. ak taalibe yëpp. ak taalibe yëpp. loolu ca la ñu nekk. ba atum ren jii. ba atum ren jii. bi mu bëggee mu jeex ci adduna bi. bi mu bëggee mu jeex ci adduna bi. daf ne ma adduna ci boppam. daf ne ma adduna ci boppam. suuf. suuf. moo jaaxle. moo jaaxle. xamatul fu mu jëm. loolu nag li ma yaakaar moo ciy pexe. loolu nag la yaakaar ne moo ciy pexe. mooy delloo suñu bopp mooy delloo suñu bopp ci sëñ Touba. kattanu kattanu soppi adduna ak aar ko. kattanu soppi adduna ak aar ko. moo ko man moo ko man nañ koy defee nag moo di. nañ koy defee nag moo di. benn fanu muharam. benn fanu muharam. danaa digal is bu tarxiya yi. danaa digal is bu tarxiya yi. penc yi ci Touba. penc yi ci Touba. penc mu ne ñu def fa ay baas. penc mu ne ñu def fa ay baas. ñu dëkk ci penc ma yendu fa. ñu dëkk ci penc ma yendu fa. yendoo jàng xasida. yendoo jàng xasida. ba takkusaan. ba takkusaan. leen di lele ca ca leen di lele ca ca bis ba. naa ko jox Youssou Diop. naa ko jox Youssou Diop. togg ko. mu togg ko. baas bu ne bu ñu fay bu ne mu yóbbu fa ay def. bu takkusaanee nag ba ba ba lépp àgg. bu takkusaanee nag ba lépp àgg. xam naa ne sëñ Touba. xam naa ne sëñ Touba. ñii ñaan yàlla ñëpp. ñii ñaan yàlla ñëpp. dàq ñaan yàlla. moo moo leen dàq ñaan yàlla. te ba mu koy ñaan. te ba mu koy ñaan. bàyyiwul dara ci ñaan la. bàyyiwul dara ci ñaan la. waaye la mu koy ñaan nag. waaye la mu koy ñaan nag. nangu ñaan gi taxul mu koy ñaan. nangu ñaan ga taxul mu koy ñaan. ngànkal ñaan ga mu koy ñaan. ngànkal ñaan ga it taxul mu koy ñaan. da ñaan rek. da koo ngir màggal boroomam. ngir màggal boroomam. ak jaamu ko mu ne nun nag. mu ne nun nag. xay na mënunoo àgg foofu. xay na mënunoo àgg foofu. waaye sañ nanu. waaye sañ nanu. bu ñu yendoo ba ngoon. bu ñu yendoo ba ngoon. nu wéeru ci ñaanam googee. nu wéeru ca ñaanam googee. ñaan mbas mi jóge fi. ñaan mbas mi jóge fi. tofal ca it. tofal ca it. tofal ca it. naataange. naataange. yoo xam ne. yoo xam ne. ñu tàmbale ci nawet bi nga xam ne. ñu tàmbale ci nawet bi nga xam ne. day xam ne. day tàmbale ci nawet bi nga xam ne. cate na cate na. yàlla dogal. yàlla dogal. sëriñ Youssou dese naa dégg wax ja. sëriñ Youssou dese naa dégg wax ja. daal di koy yaatal. daal di koy yaatal. woo ñëpp. woo ñëpp. bi mu yëgee ne woote nañ ko noonu bi mu yëgee ne woote nañ ko noonu yi. la ma ne iblis day. la ma iblis day. lu mel noonu da daan na ci dugg. lu mel noonu daan na ci dugg. waaye bu yàlla dogalee. waaye bu yàlla dogalee. ñi wuyu si ñëpp. ñi wuyu si ñëpp. ànd nañoo man sama pas-pas boobu. ànd nañoo man ci sama pas-pas boobu. ci delloo sëñ bi suñu bopp. ci delloo sëñ bi suñu bopp. bañ caa boole dara. bañ caa boole dara. kon wuyu si gi day gën mu ñàkkee si. kon wuyu si gi day gën ñàkkee wuyu si. te yàlla dogalal na ko loola. te yàlla dogalal na ko loola. nit ñi ba ñu ñëw. nit ñi ba ñuy ñëw. dee ak bala ñu dee ak ba la ñu yemale. dañoo jox sëñ Tuubaa seen bopp. dañoo jox sëñ Tuubaa seen bopp. sëñ Muntaxa foofu foofu la toll. noonu la aaree adduna bi. noonu la aaree adduna bi. yàlla sagale ko ko. yàlla sagale ko ko. defal ko ca ndam. defal ko ca ndam. nun taalibe yi nu koy xuuyoo. nun taalibe nu koy xuuyoo. kon yéen ñi nga xam ne. kon yéen ñi nga xam ne. xëy na sama doxin dana leen neex. xëy na sama doxin dana leen neex. da leen a neex. da leen neex. ba ngeen bëgg a roy ci man. ba ngeen bëgg a roy ci man. yoon waa ngoog. yoon waa ngoog. maa ngi. maa ngi yéen a ngi. yéen a ngi an dem. an dem. jërëjëf